li tax ñu tok fi des magistrats sénégalais bi ñu euh, sortie devant la presse dañu xone ne yenn saa yi dina am ñu ñëw di parce que dañoo nekk si jamono joo xam li ñu wax communication dafa am solo réew euh, dañu seetlu fan yi ne dafa am coow yu xaw a jugaat justice moo euh, occasion le pour ñun également ñu ñëw waxtaanaat tuuti ak askan wi delloosiwaat tuuti xel yi parce que si jamono ji weesu dégg nañ ay kàddu yu jub ñu jëmale ko si li nga xam ne soit si ñuy àtte la soit si mbirum justice si boppam ay kàddu yoo xam ne rafetloowuñu ko parce que lépp rek si Sénégal mën nañ si toog ñu waxtaan lépp loo xam ne rek nit ki yaakaar nga ni lii euh, lu ñuy jalgati si sa yoon la sax boo waxtaanee sax nit ñi dinañu ut solution mais loolu moo gën Euh, yenn kàddu yi jarul ñu koy jëmale si li nga xam ne mooy institution de la république yi ñi nga xam ne euh, tey bu ñu nee république rek institution yi la donc amul benn citoyen boo xam ne à commencer par ñun xam ne am nga droit tey institution yi nga xam ne tey mooy Sénégal ak monde bu fépp foo munti dem loolu moo fa ne nga koy njàkkal fayda parce que institution bu mel ni justice kenn benn citoyen ak nu sa daraja mënti tey waruloo mën a taxaw ne yaa ngi diirante mag moom parce que euh, warul nekk kenn warul jéem a suufal justice baaxul ci réew ñi ko ñi nga xam ne ñoom aussi ñoom la borom bi dénk mooy magistrat yi nga xam ne muy magistrat suñu ne magistrat mooy juge yi di procureur yi euh, ñooñ tamit ci seen biir liggéey euh, yoon dafa am lu mu leen aare ba am na noo xam ne mbay ñu citoyen mu war a dal seen kaw noonu képp koo xam ne nag ci réew mi nga nekk

askan nous ñu xam né nañu 17 millions sénégalais C'est ci biir 17 millions yi magistrats yi 510 millions 17 millions pour 510 ku def lool rek war nga mën a xam ni ñii euh, li ñuy liggéey euh, dina dem ba loxo parce que li ñu ku ñëw ci tribunal de tàmm ko rek di nga gis yenn saa ñu toog fii suba audience minuit wala une heure du matin wala lu ko raw am na ñoo xam ne sax dañuy fanaan te si suba la ñuy tàmbali ndax dossier yu bëri ba demee si cabinet d' instruction yi euh, juge yi ku si nekk li gën a tuuti presque si dossier boo yor mën nañ na 500 la jëm kaw te loolu bon nit benn nit mënul yore loolu yëpp si si liggéey ñu ne li nga war a def dafa war a gaaw certes li ñu liggéey metti na parce que dafay am jamono dañuy téye ay doomu aadama gënalul kenn ñu yàgg fa gënalul kenn mais il faut aussi nit ñu toog ñi nga xam ne ñooy acteurs judiciaires yëpp ñu toog ñu réfléchir ñu xoolaat parce que dossiers yi bari na magistrats yi bari wuñu te conditions yi ñuy liggéey aussi mayuñ leen euh, lu ñu bëgg ñu def ko ci jamono yi ñu ko bëgg a defee coow day jóg ba euh, suñu mbokk yu ci bari dañu jàppee ñun ne dañ fi toogal euh, nguur wala lu ñu nguur sant ñu def loolu àndul at suñu liggéey ñun parce que wax la boo continuer di dem na affaire nguur nag moo mel noonu parce que Nous ñii yàlla def na depuis bi ñu nekkee xale di jàng ba tey na dimbali na ñu lu bari juge pouvoir opposition coow la a musul changer

ba tey jii defe naa ne kenn mënuñu koo remboursé ak man ak sama waa génération boobu li ngi def licence en droit coowum politique moo indi woon loolu coowum politique moo andi leneen ak leneen si réew mi ñëpp teg si seen bët donc politique a bëri yëngu-yëngoon ak riiru boppam te fu mu dem noonu lay duggee si riir mi lay duggee lay bëgg yóbbaale ñëpp moo tax nag il faut que ñu taxaw ñu wax leen ñun ay fonctionnaires la ñun état du Sénégal moy suñu employeur ñun état mo ñuy fay ñun nguur fay ñu ñun état du Sénégal moy ki nga xam mo ñuy fay te état du Sénégal du mës a changé lu ñu bëgg ñu delloo ci xel yi parce que du ku ne boo ñëwee ci yoon rek la nga wax yaa am deug dëgg ñun dañ koy seete ji te fañ koy seete jee du ci wax. bu Masamba di wax du wax du si lu Mademba di wax fañ koy utijee mooy dossier yi ñuy jox ba mbir di am fekkee wuñu ñu defee enquête jox ñu suñuy suñuy kayit si loolu la ñu sukkandiku pour jéem ne ñu ngi àtte waxuñu ne nag ne lu àtte noonu la parce que luñ la jox mais dañu bëgg nit ñi aussi bu bu ñu dem ba nekk si dëkk boo xam ne lépp politique la lu nit waaye lu lu lu nit def ak ñu ne politique la am na ñoo xam ne nag. taamu nañu bañ a def politique seen àdduna te du ñu ay juge sax ñu ngi fii mais ku si nekk am nga si société boo si nekkee lii nga jël sa wàll nga bàyyi ñee jël seen wàll ñu ne bis bu ne rek yaa am dëgg si kàddu parce que yow rek yaay wax loolu daal laa bëggoon tënk en attendant euh, bu question yi ñëwee ñu mën si répondre